commission sociale bu Touba ca kanam fas yéene koo jébbal ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba ngir jàppale leen ci tabaski bi nga xam ne mu ngi jub si ñu mën a sol yére yu yees ni nga xam ne noonu la ko seen naw lay defee. ba fi mu toll nii li to li ñu fi dajale ci ay yëre yoo xam ne nii ñaw nañ ko ba paqueté ko ba mu mucc ayib toll na ci treize mille cent trent neuf ps mbuus yi nga xam ne moom lañ ko séddalee ndax léeg-léeg nga dem ci kër goo xam ne nii juróom benn nit ñoo fay nekk léeg-léeg nga dem kër goo xam ne fukki nit dafay nekk mbuus yi dañ ko dañ koy calculer comme kër ga nam toll mbuus yëpp mu ngi toll ci 2350 li ñu fi dajale ci ay col yoo xam ne col yi soxna la te ñu mën ko euh, suturloo ndax dëkk bi tamit dañ bàyyi xel ci ne dëkkub diina la col gi nga fiy sol dafa war a jot waaye tamit sëñ bi dafa soññee ci ñuy muuru col yi mi ngi toll ci 100 317 saag yi nga xam ne moom la jigéen yi yor mi ngi toll ci 19 mbaxana yi mi ngi toll ci 8 yére jigéen yi mi ngi toll ci 12246 yére góor yi mi ngi toll ci 382 yére xale yi mi ngi toll ci 511 dàll yi mi ngi toll ci 192 am na ci tiis yoo xam ne dañ ko indi woon ñu séddale ko suñu bokki tailleur yi nga xam ne ñoom ci dëkk bi ngir ñu jàppale ñu ci ñu ñawal ñu ko ñu ngi ci profité di sant association tailleur yi nekk ci dëkk bi yëpp ak mboolem ko xam ne jëloon na ci yére yi nga xam ne jot nañ ko fee indi nga xam ne ñoom ñaw nañ ko ba noppi am na yu des nag mi ngi toll ci 100 pièces yi nga xam ne dañ koo ñëwagul nga xam ne ay yoo xam ne ñëwaguñ ko nga xam ne képp ku ñuy jox lu la mën a jàppale ci kër ga dañ ciy boole ab tiisi yëre yooyu mi ngi toll ci environ 300 am na ay darab tamit am na ay rideau am na ay cin am na ay madar am na ay eau de sewel ay ba sax ay indi am na fi ak ay am ñoo xam ne ay takkaay sax dañ ko joxewaale ndimbal gi nga xam ne moom la commission sociale bu Touba ca kanam joxe yemul rek ci yére yi ndax yëkkati na valeuru fukki million ak ñaar yu teg téeméeri junni ngir jàppale ko ñi nga xam ne dañoo war a jënd xar te jamono jàpp leen ba mënuñu ko. képp koo xam ne ni ñi ngi lay jox ndimbal ñi ci ëpp dañ ciy boolewaale loo xam ne nii bu la mënut jëndal am xar mi nga xam ne moom ngay jaamoo yàlla tamit dana ci sori. li ñu jot a séddaleegun ci ay ndimbal yoo xam ne dana mën a sori ci xar mi mi ngi toll ci douze millions cinq mille moom moom moom la toll. Touba di dëkk boo xam ne dafa bari ñu bàyyeekoo ci village yi ngir ñëw fekk si Serigne Touba ñooñee nag bëri na ci ñoo xam ne seen loxo yu jotul seen i ginnaaw mu nekk ñoo xam ne dañ leen war a taxawu saa su ne di kàdduy Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Mouhamed Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ca kanam moom ak mbooleem kilifa yi. rafetlu nañ bu baax a baax jëf ji. ñi gàddaay seen i bokk fekk Serigne Touba ngeen ngeen dimbale leen ko suñ Touba rek am seen pay yàlla ma leen fayal. man nañu wax ne Touba Ca Kanam képp ko xam ne bokk ci lépp lu ma sëriñ Touba nar a jox na la ko jox ba noppi loo ci am day na kon sëriñ maa ngi sant wax di gërëm yaay ñu ñëpp sama cant ci yéen la moo moo am di sant nag sëriñ Mourtalla mi nga xam ne it moom la yàlla dogal ñu mu jiite lii nu fi dajal tey muy commission sociale moom itam ñu ngi koy sant bu baax ci ab taxawaayam ak mbooleem nag ñu ngi ko àndal damay bañ a dugg ci lim waaye ñi ci topp ci ginnaawam ñëpp ay jàmbaar lañ ndax benn loxo mënut dara lu sotti mbooloo ko sottal kon mbooloo mi ànd ci ginnaawam kenn yeefasu ci kenn ku nekk takk nga sa laxsaay topp ci ginnaawam jàppale ko ci liggéey ba liggéey bi kawe njor ndax li fi dajee ci ay nga xam ne ñu ngi koy xayma ci ay fukki junneeg nangam kon wax dëgg yàlla loolu pastéef la itte la ab taxawaay bu mat la jotaay bi xool yi tooyoon na lool ci jëf ji nga xam ne commission sociale bu Touba ca kanam amal nañ ko ci dëkk bi di fàttali rek ne li ñu dépensé ci ndimbal gi laalewul ak ñaar téeméer yi xam ne moom la murid di joxe ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba ay taalibe ñooy jaayante di barkeelu ci social bi ngir ñu ciy dimbalee doomu aadama yi commission sociale bu Touba ca kanam yemul ci lii ne am na ñoo xam ne ci dëkk bi tabaxal na leen seeni dëkkuwaay waaye lu ëpp fanweeri malaat yoo xam ne jamono bi ñu ngi leen taxaw ci seenu faj wajalilaayi maskani tuubaabaat misras